waaw maa ngi sant yàlla julli si yonent bi di sant samay ñaari waajur di sama sant di sant sama yaay bu baax di sant xama samay staff ñëpp suma limee damay juum ku si mel ne ménageur amuñu fayam billaay bu combat bi taxaw ba lay sonn si ñun xama amaana doo xam sax boobu ba tey billaay plateau laa waroon toog gërëm ko mais xama billaay muy loolu zéro amuñu fayam billaay dafay sonn su ñun di daj lu mett su ñun billaay di jël xaalisam ak léppam ak temps di ko def si ñun amaan noonu la mënoon demee mais ñu leen jégalu ñun ñëpp jëriñ amuñu fayam billaahi day sonn suñu moom it amaana xam nga gars yëpp amuñu seen fay ay buuba xam nga moom bàyyi mbër la mais su ko neexoon dañu jàmm kombaam la xam nga man tam sama kombaal mais day yeewu fajar di ma yee bu komba bi taxawee ba léegi maamu ñoo bokk benn néeg bu ñuy fanaan mu daj lu métti suñ ko joxee reer maamu ñoo koy bokk kon xam nga ne kooku noonu mënoo koo fay billaahi ay buur xam nga muy loolu seeti noonu la demee barki yàlla jàpp si combat bi ay ñoom Bamba ay Cartouche Talla ñooñu amul seen fay billaahi dañuy jël seen plan lépp di ko ñun dañuy jóge entraînement ñëw taxaw fi indi ñu reer billaahi xam nga grand frère nekk si koñ bi yëpp ay ñoom Babacar ñoom Mar xam nga di sant Kéba tamit bu baax Kéba Ndaw. soo ñu gis sa diggante Tonton Siteu avant combat bi signature ba la woon yéen ñaar ngeen xas-xas loo dafa mel li nga waxoon signature bi mu ngi ñëw dëggal bëreeku. Hmm, waaw noonu la demee ndax signature ba sax ñun bëgguñu woon defee noonu noonu mais amaana xama rek deretu xale mooy circulé war a Serigne Touba signature ñoo ñu yab ñu ko waa ñun ñu doon demee dal leen mais xama dañoo dal ba mujj gi sax muy loolu ñu mel ne ñun dëkkuñu benn zone xama saa yi ñëw di ñu giree def lu nekk moo tax amaana ñu tegal ko bandi wan ne ko carrément ñun lu ñu wax duñ koy jefe war a Serigne Touba loolu moo mu làmb ja mën a demee noonu mu nekk signature ñëw jour làmb ja ñu xam ne li li nga mel li nga répété woon signature ba da ñëw bëree ko moom la mu répété woon dafa ñëw bëree ko. waaw non moom lu mu répété woon moom bëree wu ko ndax su ko woon làmb ji jeex na. war a sëriñ Tuuba lu mu waxoon defu ko. kon nax. waaw non naxu ma sax ndax mënu ma daan ku ñuy nax xam la man damaa ñëw li ma ko waxoon moom laay indi nee naa suñ bëree ma daan la suñ suñ jàppantee ma daan la moo tax ba kot sam sax danaa ko bul nangu mu jàpp la loolu tax làmb ji demee noonu ñu xool xeex bi ngeen gën a favoriser ko bëre bi. waaw ndaxte xam nga sooy bëreel nit da ngay bëree koo xamante ne si da nga koo jàpp xam nga bëre tamit jàpp la ñu wax man du ma du ma du ma ñëw waa benn benn zone ñëpp topp sama ginnaaw xam nga grand frère yu bëri bàyyi seen li ñu doon def yëpp xam nga topp sama ginnaaw suñu booy ñoom ñëpp ñëw xam nga bàyyi lu ñu def la ku si mel ne laaj xam nga ñu koy wax laaj si kaam noonu la gars yi xam xam nga di fa doon sonn si làmb ji daj lu nekk di jaay koolam di ñëw duñu ko jox ñuy lekk xam muy loolu waroon Serigne Touba xam nga kon duñ jamba si bis làmb ja di ko asaaloo si yoo xam ne si muy loolu noonu moo dañuy jël suñ temps di bëre waale conseil direeku te leen loolu lañ ma santoon direeku jàpp mais ki ngay jàpp day fekk mu taxaw te xam su taxawoon waroon Serigne Touba làmb du mat une semaine moom taxaw na kay. non taxaw. mi ngi lay mi ngi lay jam di taxaw arrière ah, bañ na ko ba ni mu ngi lay jam di arrière ah. loolu nga wax. yow jàpp moo la arrangé mu xëy ma ko arrangé. man damaa arrière benn pas. waaye dafa mel jël nga ay coup waaw jël naa ay coup déggoo li ma wax loolu du dara man déggoo li ma la wax dama daan xeex kenn du ma fay léegi damay xeex ñu may fay loolu laa ko wax wax naa ko ko xam nga dama daan xeex kenn du ma fay xama nga léegi damay xeex nag léegi ñu may fay kon su boobaa noonu la demee nag barki Serigne tuba kon su boobaa xam nga day gën a neex rek ginnaaw bi nga génne sa ton Siteu fi mu toll nii zam fan la jëm ña ñooy ay naataangoo non sama staff xam na fi ma jëm man du ma takku benn mbër ma woo tere wóor a Serigne Touba dañ may man dañ may wax ne ma li dañ may dañuy xëy xëy rek ne ma combat taxaw na. waaye waaye tey jii say morom ñu ngi ci làmb ji. non aw ma droit wax benn mbër. billaay walaay talaay soo neexe neexee nag montage ku neex mais sama staff lu ñu wax rek ma loolu laay jël. di gërëm nag falu Ndiaye ci xumu tàkk kooku amuñu fayam. billaay walaay talaay. wóor na Serigne bi ma ñàkkee làmb dafa jooy jooy métti. billaay wóor na Serigne Touba te xam nga defaluma ko loo xam ne si. fay non amaana. la ma doon demee daal sax lañ nekkoon de billaay amaana noonu la ma doon demee barki Serigne mais dara maam yu xama amuñu fayam yu ama day sonn suñ di suñu waa écrit ñoom ñëpp xama di nuyu suñu code sumbel amuñu fayam manager waaw noonu la demee manager sant naa ko commencement moom laa njëkk a sant. manager sa diggante ak bombal neex na. non loolu. loolu dafa daanu démb nga daanu. non bombal bombal man loolu lu may wax si moom sama ah. staff rek. lu ñu wax rek. bombal moom nee na boo booy yu ndaw yi lappi lappi yëpp ku ku mu si jël da ko duma. waaw ndax tamit dafay duggoon juum. ne dafa bëgg a duggaat fii pour ci koy xaar ñun lu lu ñu lu ñu suñu staff wax rek ñun pare nañ pour bëre loolu noonu. waaw déggoo lu ma la wax suñu staff suñu jëloon caatu yoof suba dañuy bëre ak moom. caatu lan yoof mel ni suñu staff su ko jëloon eh, dañuy bëre. zam caatu yoof mi képp seen i. waaw loolu déggoo lu la xanaa su ko jëloon laa la wax. ñu dañuy bëre loolu kon da ngay ñu am na fu ñu teg suñu. li nga daj démb loolu ngay daj kon. waaw garaawul waaw ma daj damaa yoon. ah Thiatou Diouf la mu kii. saaxi wu ma la ma la xanaa sama staff suñ ma ko joxoon moo bëree suba lool. dimanche bi ñëw suñu ma ko joxoon sama staff. lim daan sama moo tax sa xel non nekkul nekkul sa nekk si moom man billaahi wala tooguma sax ba naan suñ ma joxee diw. ma yóbbu sama licence doo si sa yor bu ma fa woon de dama relevé ji. ah yow bi nga dem di relevé licence. da ngaa dem combat fekk la fa. damaa dem fekk fa combat sama staff jëlloo ma mo ma jël ko kon xama ñun am na feneen fu ñu teg suñu bët fu bokkutoo kooku noonu mais amaan nii la mënoon demee waroon Serigne Touba su taxawoon laam du mat une seconde. taxaw kay weesu lu mu def démb. ma a jaaxal li wax moom muy daw arbitre di ma jox avertissement kii dàq ji waate wala léegi affaire dafa tourné. <laughs> loolu yàgg arbitre wax ko arbitre. Ah, laaj ko arbitre waaw la may ah ñoom kay laaj naa leen ko man kay laaj naa ko si biir géew xam man sama laamin damul sama ko naa ko ko nga ne ko lan. man kay yow xanaa léegi affaire dafa tourné kuy dàq ci waat lañu jox avertissement faale wu ma. faale wu la du ma faale. ma xam man sama laamin damul sama poos yow xam nga loolu. benn zoo lañ def wala da naa ko naturel xam nga di nuyu ma fi à orodose bi tamit damay sant ba ma sant dem lañ ma ko yàqal tamit nag quoi. bon sorti. arbitre bi daal xaw ma nu mu fa demee noonu sama yaakaar moom daa am kenn kum damaa yaakaar ménageur dafa nangu gelam rek ménageur. ménageur ba ménageur. lakkar yàbb. nangu. waaw <laughs> ah, daal yaakaar mu jéppee ma ko. mu jéppee la ko. waaw Aliou moom moom moom ménageur lu sëyoon. waaw ah, dama xam ne ménageur mooy daj si ñun lu ne suñu victoire la soxla morom mi daj si lu loolu noonu ménageur soxla wuñ suñu xaalis soxla a wax. loolu waaw loolu mais xam nga amaa noonu la mënoon dem mais mais ma sant ñenn ñi. ba pare léegi dañ la bàyyi nga sa nga sa des naa. lu desaat ma la waxoon keroog. Ah, waxoon waaw noonu la demee nag. <laughs> xam nga daa am kenn koo xam ne dama ko war a sant. muy sëñ Bas amuñu fayam. billaay day sonn si ñun suñu sëriñ la suñu wasi la suñu yaakaar tey ëllëg amuñu fayam bari sëriñ Tuubaa di sant suñu mbokk yëpp ku si mel ne xam nga sama yaay maa ngay sant bu baax di sant Maram di sant Ami Fall billaay wallaay tala ko sama tante di sant sama nijaay alaaji di sant Bas xama di sant Muso wóoroon Serigne Touba kooku aw fayam billaahi wallaahi taala dafa sonn si combat bi billaahi kooku kooku ndam rek laa ko billaahi wallaahi combat bi may naam ku ma ko doon bëreel billaahi moo mu demee nii daa mel sama benn lonko boo xam ne si dafa doon sonn si lu nekk comme des finition ñu jàpp ko billaahi wallaahi taala affaire a muy Moussa Mbaye maa ngi koy ñaanal yàlla mu bañ mu mu bañ faa yàgg te incha allah rabi noonu lay demee barke Serigne Touba xam nga di sant gaa yëpp ma fiyaa oto dos bi ma fiyaa cox mu tàkk bi ma fiyaa buubaa bi ma fiyaa sita nguur aw ma fayam billaay walaay taalaay xam nga di sant ñëpp temps seen faal maa ngi koy sant di ko gërëm aada papa président moom noonu la demee billaay walaay taalaay zoro mu ngi nii amuñu fayam billaay day sonn si ñun barki yàlla di sant sama goro nag caane ko xamuñu fay fi la ñuy ñëw xam nga moo ñu defee émission fii dañuy sàcc ay ay lépp ay orange am ak léppam billaay walaay taalaay non xam nga combat moo ko laajoon rek xam nga combat bi ñun suñu nee ñun ñun ñun am kat lañ mais suñu amee combat dañuy faqe dañuy jël lépp tegal ko ne demal si combat bi bari Serigne Touba xam nga zoro amuñu taalaay su ñun daj lu su ñun billaay di sant suñu waa kër ñëpp cat ba cat di sant maire koñ bi yëpp amu seen fay billaay walaay tàllaay démb lépp ñoom la lépp ñoo ko jaayante Bamba Cheikh Fall Sidi Abdou Fall as suñu rapport bi ñoom ñëpp aw ma seen fay war na Serigne Touba ndam rek laa leen desel mais xam nga ak laay zoke bi laay mu talfa xam nga di sant Pape Guy gi billaahi démb dafa jógee dépendance kaw lox jubal si fii kooku amuñu fayam billaahi walaay talaay laay fafana amuñu fayam billaahi walaay talaay dañ lu nekk maa ngi sant mbaaxaan billaay walaay taalaay maa ngi sant mbaaxaan bu baax di sant Marème Diallo di sant ñëpp képp koo xam ne si mu ngi jàpp si làmb ji rek ñu ngi lay sant manager amuñu fayam il daa am lu tax may incité di sant manager daa lu ma ko digoon loolu moom yaa manager la xam nga gis nga maa nga incité di sant boobu ba léegi ah. daa lu ma ko digoon quoi sant bi non loolu jorul débat mais xam nga li nga doon wax daa benn combat boo xam ne si daa am ku ma koy bëreel boobu Moussa laa koy bëreel première combat bi Moussa laa koy bëreel mais xam nga manager daam lu ma ko digoon dama ne ko su ma daanee su ma daanee plateau rek première su ma jëlee micro rek dam naa ko manager maa ngi lay sant di la gërëm te xam nga noonu la mënoon demee nag billaahi wala buur maa ngay sant Sëriñ Thiat billaahi day sonn si ñun barki yàlla amaana xam nga wanuñu ko loo xam si mën nay jàpp suñu combat tamit billaahi walaay taalaay mais xam nga da siy sonn di daj lu nekk billaahi walaay taalaay yéen a ñu jàmm xam nga gox bi yëpp amul ku si am combat du si jàpp waxuma la ay man ak keneen ak keneen gox bi billaay kooku xam nga kooku yàlla na ko yàlla def suñu Malick Gakou te mooy suñu Malick Gakou sax ñun xew bu ñu ñuy defal war na Serigne Touba yàlla na yàlla guddal fanam billaay wallaay tàllaay Pape Sall sama mag maa ngi koy sant di ko gërëm di sant waa Touba waa Parcelles Dame Sall Dame Sall maa ngi lay sant di la gërëm gis naa sa taxawaay billaay ma fi waa Parcelles yëpp gis naa seen taxawaay si làmb ji nii mais amaan nii la mën demee ñu ngi jégaluwaat Soro amuñu fayam Zoro amuñu fayam Mbel billaay wallaay ñu ngi xam suñu coach billaahi ko amuñu fayam idi billaahi tey dafa maa xëy fajar woo ma téléphone billaahi di ma ñaaxaat xam nga kon loolu noonu daa am lu ñuy modifier si ñun ñu xam nga dañu yokkaat si beneen level boo xam ne si ñun xamuñu di nuyu jaay bi di ko sant di ko gërëm di nuyu a Patal bu waa Patal amoo fayam Modou Séeréel ñaax Kartus Talla waa Malika ñoom ñëpp bàyyiwuma nit. Njaga Silla tëj sa mbaare mu naan tës. borom Jakarta borom borom liberté bu zone bi noon la demee xam nga dem fii la ma ker keroog bu combat bi taxawoo dañ ma soo daan dafa maa saara ne ma soo daanul dañuy waaye yow muy loolu noonu mais xam nga amaana ñoom la ma noon demee. Ili jëla ma laay moo nekk nii laay noonu la demee xam nga dañuy daj si ñun lu bett xam nga Kéba Ndaw amuñu fayam billaay walaay taalaay Kéba kooku lay jàpp si ñun maa ngi nuyu ma fi xam nga Cosma Cambérène bi Balla ñoom xam nga ñoom Babacar samay tons ñoom ñëpp maa leen sant di leen gërëm Baye Sidi Pa Mansour maa ngi koy sant di ko gërëm xam nga jàpp na si làmb ji xam nga muy loolu yaa ma gën a xam billaahi bu baax a baax rek non idi pareegu ma pareegu ma mais man damay sant déglu ma damay sant da ngay déglu li duuf si nag li xajul si cin sa ku jël si cin coon da lay topp te loo gis temps la tëdd gi nga tëdd nelaw sax heure la heure bi day jot nga tëdd heure bi nga yeewu waaw li heure la waaw waaw mais eh, noonu la demee mais Zoro amuñu fayam nag de wóoroon Serigne Touba. Zoro. yow ñu gis nga yóbbu xale bi ba si biir gis Zoro doxalee noo xam ne xamee wuñ ko ko moon waaw démb man waaw benn instant xam rek ñun dañoo demoon pour jëli ndam yaa may dégg instant woowu noonu ndam rek lañ doon diis te tamit dem fekk adversaire boo xamante ne man la geen kenn xamul lu indi adversaire boo xamante ne yow dañ laa yeb nangu woo bëre geen man la fu ñu xaaca nga daw comprendre nga moo taxoon man dem naa benn di forcer boobi pour pour mu bëre fekk si ko carrément comprendre nga mais yow sa waay yow yow foo foo foo xaacee benn ins mooy loolu ñun man lii jàppee du defet du defet parce man jàpp naa ne sax dem naa ba si biir arbitre bi moom moo yàq suñu làmb parce que man dernier avertissement boo xamante ne geen xaw ma avertissement wu lan la geen. boo xam ne yow yaa tax ñu waa nan laa tax man nan laa taxee taxee ñu jox ko. ndax moom yow la tax ma am avertissement. waaw moom moom maay entraîneur moom foog mu déglu ma moom foog mu foog mu déglu man mënu a wax. li gars yi xamut. di nga wax ak moom. sa moom du la tontu. waaw léegi amaana moom xale la. yaa may dégg xale la moo ngi door a kii ci làmb tamit expérience da ciy xaw a da ciy xaw a joué amaana man dem naa ba benn ins man sax pression man. topp na ma quoi waaw kay pression topp na ma parce que dama bëggoon carrément mu forcer man xam naa ne fu mu jàpp bu waaj lay jeex yaa may kii mais koo xamante ne geneen man la sa waay foo xaatee moo daal man dama bëggoon mu dàq ko ba ba jàpp ko carrément comme nangul taxaw waaw man noonu laa ko doon toppee nag xam nga dem ba man benn instant man mënatuma téye sama bopp moom it amaana wax dem na ba bëri si moom moo tax muy xaw a wax di di ma tontu mais tamit arbitre booy avertir da ngay avertir koo xamante ne ma man la sa waay bëriwul quoi mais ko booy bi keroog boo boo xoolee dafa indi bëri indi xeex toos day xàcce rek daw comprendre nga amaana looloo taxoon nag mu demee noonu quoi. waaw kii. noo Idy yow kii fu mu jëm dafa sori barki ki Sarr. ay moromam fi ñu toll nii. waaw daf ay moromam dañoo bëri ci làmb xam nga tamit booy bi toll na foo xamante ne man bëgguma sax ñun ne fii di di lim di lim booy maanaam mbër boo ci lim rek mu jaa mu jàpp ne benn ah, instant. ah na nga ko jox Modou Anta numéro 2. waaw noonu la demee da waaw jeex na foofu rek laa yem du ma sori. ñu ngi leen di bëgg waat bu baax a baax Sam ñu ngi lay remercier bu baax a baax jox sa wàccuwaay fi mu nii ci làmb say morom bëri nga ak ñoom ba pare ginnaaw bi nga jógee si combat fi mu toll nii ban message ngay lancé. ban message laay lancé arbitre laay laaj man man arbitre rek man laay laaj quoi. arbitre laay laaj ma ma ma man kuy dàq ji léegi man ma la jox avertissement wala lan. man sama comme li nga wax noonu gis nga da nga zolu ma moom sama coach la amul droit wax ak man kon lan moo tax muy toog 16 loolu tam jar naa laaj kon moom su fekkoon noonu moom amul droit wax ak kon moom mën naa taxaw si ginnaaw barrière yi su fekkee fit teg sa bakkan rek xam nga ñun pare nañ pour def loolu noonu xam nga mais sa coach su fekkee dafa taxaw fa noonu pour wax ak yow moo tax mu taxaw fa soo deful lu baaxul su fekkee da ngaa jóg mun la carrément wàccal say tànk su fekkee da ngaa sëgg lu ëpp mun na foo tey jii su fekkee comme ça yàggoo nekk si lamb ji noonu am na foo xam da ngay jékki-jékki xaw a fàttali leen ne moom moo lay mën a mottali moo tax moom moo tax mu mën doon mottali si lu bari mais xamuñu amuñu pression si dara wóor na Serigne Touba. bu bëgg a lancer tamit benn affaire quoi benn bëgg a kii tamit waaw bëgg a lancer kii di wax gars yi xam nga ñu waajal boobaa booy susu taxaw na ko waa di wax waa jàmm gan na ñu xaar. waaw noonu la demee du yomb. booy Soussox boobaa na waa Diamaguène nañu xaar. di bëggeewaat ñëpp rek di ziaraat ñëpp joxaat ñëpp seen wàcc xam rek li ñuy a chaque jour loo gis temps la sa li du si nag li xaju si sa ku jël si coow topp la xalil di la waat bu baax a baax rek di bëggee buur séeri caat bàyyi Fatou mu ndaw maa ngi lay bëggee bu baax di la ziar beneen mission ak beneen ndaanaan